ñeent fan képp des ñu fas yéene kennal Serigne Touba loolu di ubbite jumaa ju mag ji ñu duppee Massalikul Jinaan ba tax na nag fii liggéey bi li des ngir mu yemb daanaka bëreetul ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllum kaaraange bi ca duwaanu présidence tey ji ñu teewoon ci bërëb bile ngir saytu bépp kaaraange boo xamante ne fas yéene nañ ko tekk ci bisub ñaar fukki fan ak juróom-ñaar bi nga xamante ni lañuy ñuy inauguré bi la juma kaw noonu parking yi nga xamante ne dañ ko réserver VIP yi loolu it waxtaan nañ ci télé yeeg rajo yi fi ñu war a installé loolu yëpp ñu génnee ko wax ni fii lañ war a tegoo waaye it ñu xamle ni rek lii di police ak gendarmerie dinañu fees ci bërëb bi ngir saytu lépp lu jëm ci wàllum kaaraange bi balaa bis bi ak après bis bi kaw noonu it ñoom xool nañu salle bi nga xamante ne foofu la caméra de surveillance yi nekk waaye it lu soxal wàllum logistique bi biir jumaa ji par bi yëpp xool nañ ko ba pare indi ci ab waxtaan boo xamante ni doxoon na ci kilifa yi yor jumaa ji ak ñii di waa gendarmerie ak waa police colonel Diop bu gendarmerie nationale moo ko jiite woon ànd ceek kii di commissaire bu police bu ndakaaru ci kaw noonu kii di sous préfet bu Grand Dakar teewe woon na ko ak kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo sikk liggéey bi jëm ci masalikul jinaan bi ba tax na it tënk nañu ci wàllum kaaraange bi ne rek dina am ab kaaraange mu ci ay ci bile inauguration ñu jàpp ko ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar mu yemook aljuma